di premier ministre daal euh, réagir ci li nga xam ne nag moo di page Facebook am ginnaaw aussi ñi nga xam ni euh, ñoo di ay cadre yu bokk ci parti bi di euh, Pastef ku ci mel ni Guy Marius Sagna daal réagir ñu si bëri tey jii sàkku rek nu daal di tekki li nga xam ne nag moom moo di ndombalu tànk kii di Samba mi bokkoon ci parti bi nga xam ni moo moo di Pastef moom moo nan nga mën jàngatee réaction ki nga xam ne nag moo di la premier ministre Ousmane Sonko jëmale ko rek ci nomination kii di Samba Euh, je pense que c'est c'est une bonne chose. Uh-huh. Euh, defe naa démb ak léegi ñu ngi ci doon waxtaan. Euh, par rapport ak nomination boobu nga xam ne gannaaw ba mu amee dañoo gis militants yi nga xam ne ñoom ñoom bokk ci Pastef. Uh-huh. wala boog ma ne ñu bëri en tout cas ci jeunes Sénégal yi ñoo xam ne d'accorduñu ci nomination boobee. Uh-huh. Euh, ñu wane ko ñu gis aussi des vidéos yoo xam ne ni génn na sur la mhm. di wane ne moom li nga xamante ne moom moo di euh, Samba Ndiaye ay propos yu doy waar yoo xam ne daf doon yëkkati ci géopolitique. Mhm. alors ñoom ñii dafa am loo xam ne dañ koo jaay sénégalais yi que euh, ñi war a jiite dañu war a nekk ay nitu valeur. Mhm. waaye dañu war a nekk ñoo xam ne seen ay loxo dafa set. te ñu gis itam ab rapport bu Cour des comptes bu boo xamante nii dafa. Euh, épinglé woon ki nga xamante ne moom moo di Samba Ndiaye donc mhm. loolu nekk loo xamante ne nii dafay waroo un ak la vision bi nga xamante ne nii moom la Pastef am wala ñi mhm. nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi boobaak léegi nag euh, li ma si gën a neex mooy set te defe naa dinaa si ñëw léegi par rapport ak réaction bu Ousmane Sonko premier ministre mhm. mais euh, taxawaay bi nga xam ne nii ndaw yooyu am nañ ko ci mooy maanaam ñoom ñu mën a taxaw ne seen ay njiit lii du fi amee du nag loo xam ne xëy na dañ koy teg rek seen yu bakkan mais dañoo gëm ne lii warut a am. Uh-huh. ndax nag euh, dañoo yàgg wax à ces jeunes là que dinañu ànd ak ku nekk liggéey kenn waxul ko ku bokkoon feneen waroo mën a ñëw ànd ak ce régime là liggéey uh-huh. aujourd'hui ci biir gouvernement bi on a quelqu'un comme Mary Teuw Niane on euh, ñu bëri ñoo xam ne tey ñu ngi liggéey ak Ousmane Sonko. yàlla a uh-huh. ministre ñu si bëri mais. Euh, Moussa Balla Fofana bii ñuy wax mais ci côté PDS la jóge laataa muy ñëw ci ci Pastef mhm. donc c'est des gens yoo xamante ne tey am na feneen fu ñu nekkoon waaye kenn mësu leen gis ci lu ñaaw mhm. kenn mësul dégg ñu ne ñii kat mës nañ leen a ci wàllu koppar exemple bi gën a euh, simple Aminata Touré mhm. jàmmaarloo naa ak Ousmane Sonko fu ne ci politique mais est-ce que mën nga koo génneel fu ñu ne Aminata Touré mii dafa dafa luubal xaalis wala quelque chose comme ça donc mbir mi nekk bataille boo xamante ne nii jeunes dañoo taxaw jàpp fi ñu jàpp ne lii d'accorduñ si mhm. manifester ko fépp à travers les ci plateau yi képp ku ci mën a wax ci loolu li leen ko may mhm. mooy ñoom nekkuñu une bataille électorale boo xamante ne nii mhm. dañ leen di gàddu jox leen xaalis yóbbu leen ne leen kaay leen euh, ci manifestation wala dañ leen wala président parti bi mooy ñëw indaale xaalisam financer parti bi wala financer campagne bi cest investissement humain bi ñu mën a def tey jii ak participation bi ñu mën a def moo xam ci cagnotte la moo xam leneen ak leneen loolu moo leen di may légitimité ñu mën a taxaw ne fii ngeen bëgg a dem nii duñ ko nangu. et je pense que loolu ça fait de ce parti là benn parti boo xam ne dafay am benn démocratie interne. Mhm. mooy mbir bu xewee militant dañuy taxaw ne ñun d'accord ci lii. gis nañ ci euh, liste yi fële ci Linguère kenn koo xam ne nii même situation bi la nekkoon mais jeunes yi bi ñu bi ñu bi ñu amee benn bi. kilifa yi dañoo jël ko génne ko ci biir liste moom si boppam sax dafa dafa dafa démissionné euh, par rapport ak liste yooyu noonu donc premier euh, le président du parti Pastef Ousmane Sonko. Mhm. gannaaw coow loolu yëpp mu daal di dellu si indi euh, ay leeral di wax ni euh, chers militants et sympathisants donc à partir du moment où mu tàmbalee teg sam chers militants et sympathisants je parle qu'il parle je pense qu'il parle à ses militants. Mhm. et à ses sympathisants ci ñoom la yem. mu ne nous accusons réception des multiples expressions de votre indignation suite à une nomination intervenue récemment en tant que président du parti je me réjouis de votre vigilance qui témoigne de la maturité de notre démocratie interne et prend sa source de ce douloureux souvenir des épreuves auxquelles nous avons été soumis pour en arriver là uh -huh. où Dieu a bien voulu. Soyez convaincus que ce souvenir est plus vivant et tenace et nous, quand chacun de vous Euh, je puis vous assurer que le président Diomaye, qui a certainement pris la décision sur proposition alliée, n'avait aucune connaissance kii woote waay. <laughs> aucune de ces faits. Voilà, de, euh, de, des faits dénoncés. Uh-huh. Je rappelle la position historique de notre parti. Il reste ouvert à collaboration avec tous les Sénégalais convaincus par le projet et soucieux de son euh, succès. Mmh. En revanche, il reste fermé à toute personne impliquée dans une gestion scandaleuse d'une responsabilité publique ou ayant fait montre d'un zèle excessif dans l'inimitié dans, mhm. dans contre le parti euh, ses leaders ou ses membres je ne doute pas que les mesures correctives idoines seront apportées au plus vite mmh. chers et sympathisants à 48 du début de la campagne pour les élections législatives je vous demande de tout je vous demande à tous de rester mobilisés et concentrés pour garantir une victoire éclatante et une majorité écrasante au soir du 17 novembre 2024 mmh. donc mu nekk réaction bu Ousmane Sonko euh, buy wane ne moom aussi mi Euh, am benn oreille attentive boo xam ne mi ngi koy euh, euh, prêter mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jeunes yooyu noonu ci réaction yi nga xamante ne nii am nañ ko fan yii yëpp gannaaw nomination boobu nga xam ne am na. Mhm. donc moom li mu wax daal mooy ne li nga xamante ne nii moom moo jëm ci mooy li ma doon wax léegi rek maanaam dafa bokk ci critères yu ñuy fale nit mooy loxo yu set. Mhm. te mi ngi joxe garantie di wax ne dinañu corriger. li nga xamante ne ni euh, moom moo am au plus vite donc jàpp naa ne débat boobu moom comme ni ma ko euh, waxee jàppoon naa ni sax lii coow li mooy bëri mais ba fu ñuy mujjee. Mhm. ñoom dinañ tegg seen tànk foofu parce que dinañ comprendre que lii nii dafa nekk des choses yoo xam ne warut am et puis euh, dafay nekk acte yoo xam ne soo ko posé rek dafay dafay xaw indi jaxasoo. donc mhm. je pense que loolu mi ngi fàttale aussi que nous sommes à 48 heures ci début campagne bi. donc euh, na gars yi focus ci li nga xamante ne moom moo di euh, campagne bi ak euh, victoire bi nga xamante ne ñoom seen parti moom la ñu bëgg. ci ci 17 novembre 2024. mais en tout cas mu nekk loo xamante ne daal liñ ci liñ ci mën a jàngee. Mhm. mooy ñoom ils ont pas une jeunesse boo xam ne comme ñi leen ñenn di décrire dama koy bañ mooy ñii kat. dañoo nekk ay ay fanatique derrière une personne boo xam ne fu mu leen joxoñ rek ñu dem déedéet. Mhm. président de la république moo taxaw ne nominé naa diw ñoom ñu taxaw ne ko lii waruta am. Mhm. donc loolu ça montre que ñoom am nañ benn saa à dire li ma lay wax léegi ne la fi mu ne rôle assemblée nationale lañ taxawee. Mhm. mooy ñoom ñoo fal ba pare ñoom ñooy taxaw di surveiller. di li nga xam ne moom moo di action gouvernement bi. Mhm. benn pas bu ñu teg bu nekk jeunes yaa ngi xool ba xam pas bi lu baax la wala lu bon la ndax lu mën a indi résultat la am déet. donc je mhm. pense que loolu euh, au lieu muy nekk benn obstacle wala problème. mun nañ ko jàppee benn benn benn benn benn chance boo xamante ne tey ñoom am nañ ko am des jeunes yoo xam ne dañ leen di ku si nekk jàpp nga ni conseiller nga da nga war a indi sa xalaat ci li defar réew mi. alors euh, ci biir texte bi euh, dégg naa mu ni carrément. mbir mi daanaka président Diomaye yëgu si dara peut-être euh, benn allié moo ko proposé carrément euh, ki nga xam ne nag moo di euh, Samba Ndiaye est jii jotul nu xool procédure bi nga xam ni mooy procédure nomination yi parce que jii bu fekkee dana la rek nga daal nga daal di koy tabb je pense bien que à chaque fois genre problème yi dafay am. oui loolu aussi je pense que problème bi dina permettre ñu mën a poser débat boobu. parce mm-hmm. bu fekkee ne parce je pense que ministre tutelle bi moom mooy proposer un profil parce que loolu ça peut arriver maanaam yow mi nga xam ne ministre nga nga gis koo xamante ne si sa tutelle moom war na nga yaakaar nga ko si benn mbir nga proposer ko au président de la république mais dama jàpp ne sérieux bi ñu def ci choix ministre yi mhm. ba ñu jox ñu date ne bis wi la ñu war présenter ministre yi ak heure ñu gis ne dépassé nañ ko lu tax ñu dépassé ko c'est parce qu'il y a eu des enquêtes de moralité yoo xam ne moom lañ doon def ces enquêtes de moralité yooyu warul te yem ci ministres yi wala yenn DG ci yenn secteurs yu stratégique yi mais dafa war a yem dafa war a en tout cas law ci lépp loo xamante ne poste de responsabilité la ba képp ku ñuy et je pense que li ça va ça va servir de de leçon au président Bassirou Diomaye Faye ba nomination du rek dañuy ñëw ne ko kaay nominé diw mu nominé ko mais kuñ ko ko dina xool kii kan la moom mooy kan est-ce que rapport mës na ban genre nit la donc loolu aussi je pense que lii c'est une bonne chose ci sens boobu parce que dina permettre ñu mën a corriger loolu bu baax a baax. Mhm, exactement alors Ousmane euh, nan nga mën jàngatee aussi euh, nomination kii di euh, Samba Ndiaye ak ki nga xam moo di Madeleine Suzanne Lo daanaka boobaag léegi jur na li nga xam ne nag moo di coow bëri ay ndaw yoo xam tey ñoo bokk ñoo bokk ci parti bi di Pastef mhm. def ay dénonciation pour rek président daal di.